voilà là je vais rebondir sur sur ce qu'il dit gis nga vous en Afrique. da ngeen foog <laughs> mais laisse-moi terminer da ngeen foog vous en da ngeen foog ni non non non dafa naan ici en Afrique mm-hmm. dañu foog ni. rek si la ñu bokk c'est comme les supporters. qui sont laisse-moi terminer c'est comme les supporters yaa ngi dégg ils ne cotisent pas. ils ne s'investissent pas est-ce que tu comprends. non non non laisse-moi terminer non non da terminer. man it yaa xam déglu ma rek. aujourd'hui il parle de syndicat. waaye laisse-moi terminer waaye wax sa équipe nga wax yow déglu ma aujourd'hui tu me parles de syndicat le syndicat des footballeurs professionnels de France les joueurs cotisent yaa ngi dégg et sont engagés dans le syndicat ici président du ma bàyyi a un joueur qui est dans notre syndicat. Mm-hmm. qui avait des problèmes avec le club. Quand il s'agissait de l'accompagner, nous, on l'a accompagné. Mhm. mais on n'est pas là pour accompagner des gens yoo xam ne bokkuñu suñu syndicat ils ne cotisent pas. ce qu'on doit laisse-moi terminer ceux, qui sont dans le syndicat quand ils nous appellent nous on les accompagne ceux qui ne sont pas dans le syndicat quand ils nous appellent on les accompagne xam nga lan mooy problème yow tu es syndicaliste da ngay syndiqué c'est les journalistes alors si les autres ne le font pas nous ne sommes pas là pour des jours yoo xam ne dañuy dem signer seen contrat def lu leen neex est-ce que comprend ils ne cotisent pas dans le syndicat xaar ba am problème du ñu ñëw pour retourner pour nous dire nous sommes là parce qu'on a ce problème non yow xoolal lu logique nga wax ko ceux qui sont dans le syndicat nag di cotiser di am seen carte de membre quand ils ont waaw non non on le défend pas on le défend pas et partout dans le monde y a pas un syndicat qui défend un joueur qui n'est pas dans ce syndicat wax ma ban syndicat nga gis fii si. c'était pour ça. le syndicat c'est pour ça ce n'est pas pour rien d'autre c'est pour que les joueurs qui sont syndiqués parce que dinaa la xamal benn affaire ce syndicat c'est pour eux c'est pas pour nous mm-hmm. aujourd'hui leurs cotisations leur sont versées quand ils seront à la retraite c'est ça qui fait le syndicat et puis de la fédération e tu me parles de syndicats parce que nous, nous on ne fait pas notre travail on a fait notre travail. ce sont les gens qui ne font pas leur travail. merci merci <laughs> voilà ce sont les gens qui ne font pas leur boulot dañuy waxtaan. ils n'ont pas d'avocat ils n'ont pas de ni ñu koy wax de ils n'ont pas de quelqu'un qui les accompagne. ils n'ont pas un syndicaliste qui les accompagne. ils n'ont personne. yaa ngi dégg ñoom dañuy demal seen bopp parce que xam nga lan mooy problème xaalis bi ñu leen di fay moo leen intéressé xooluñu sax li nekk seen contrat. d'accord est-ce que comprend et la preuve quand ils ont un problème et qu'ils nous amènent ça dans le syndicat tout de suite on voit que ñoom ils sont dans l'erreur mhm. parce que des fois ils signent quelque chose bi nga xam ni ñoom ñoo nekk en tort am leex ñoom ñoo nekk en tort par rapport à ce qu'ils ont signé ce n'est pas le club bi mhm. c'est eux qui sont en tort par rapport à ce qu'ils ont signé après ñu ñoo bëgg yow nga bi moo am tort non d'accord parce que quand tu acceptes de mais tu prends tes responsabilités. Mmh. merci beaucoup doyen ba tey dañuy des ki nga xamante mooy le président Doudou Wade président euh, maanaam des maanaam vingt vingt minutes mooy dese li nga xamante moo ñu waxtaan balaa ñu dugg ci ci deuxième troisième chapitre bi di wàllum basketball voilà président saison bi jeex na. Mhm. léegi est-ce que mën nañ jàpp date bi nga xamante moom la ñu mooy saison deux mille vingt vingt quatre vingt waaw war nañu mën a jàpp date bi mais sous peu. ce qui est on va démarrer très tôt. au mois d'octobre waaw ah, on va parce que d'abord nous ne voulons pas toog lu yàgg. Mm-hmm. du ñu jouer donc dañu teel a pare mois de bu bëgg toog août. Mm-hmm. toog septembre toog octobre muy trois mois c'est trop bu ñuy toog maximum. deux mois waaw deux mois mag deux mois yi sa bari na. Mm-hmm. mais toujours dañuy dañuy donc mois d'octobre vraiment il faut qu'on que l'on que championnat parce que il faut savoir que mhm. ah, ce championnat-là sera un plus effectivement 14. Mhm. c'est vrai qu'il a a d'Afrique. Mhm. mais il y a la coupe du tout ça. donc il faut ñu teel teel teel teel a donc au de démarrage il faut qu'on en bureau mhm. te comme que defaguñu le bilan de la saison du mhm. ko mën a annoncer fii quoi mhm. mais ce qui est les équipes au septembre war nañu mën commencer seen travail hivernal sànq wax nga gàkk-gàkk yi nga xamante moo am ci saison bi wax nga ci violence bi peut-être amuloon biir mais peut am na siwiti parce que le doyen sax maanaam jot nañoo maanaam yàq li nga xamante ne ci violence <laughs> Général Moussa bëggul voiture